mbokk yi euh, ñu leen di nuyu di leen euh, tënkal lu ndajeek ndajeel ba nga xam ne moom moo ëmb jiite kujje politique bi te ñëpp daanaka fekke ko wala seeni ndaw teew muy ñu bokk ci FRN muy ñu bokk ci M2D muy ñu bokk ci coalition na muy ñu bokk ci CRD muy ñoo xam ne wuñu fenn waaye bokk ci société civile di ay sénégalais yoo xam ne doomu réew mi te xam ne réew mi moo wootee ñu ñëw wuyu si ndax bu ñu fàttalikoo bu ñu génnee élection présidentielle yi ñu wees président de la république xamoon na ni élection yi daf ko tënk ci ab loi boo xam ne dañ ko tuddee parrainage te mu jëlee ko woon ci anam yoo xam ne ñu bëri d'accorduñ ci woon mu xam ne élection ci boppam dañ ko daal di contesté mu woote dialogue mune ne nak njut njuuj bi jeex na wax devant sénégalais yi ak devant kilifa diine yeeg kilifa aadana yi ak askan wi yëpp que njuuj njaaj yi jeex na léegi nañu waxtaan waxtaan goo xam ne ëllëgu Sénégal lañ ci waajal te ñu bëri jàppoon ni comme du am deuxième mandat troisième mandat amaana mun na xalaat mu am lu fipp ci moom mu liggéeyal Sénégal waajal Sénégal pour ëllëg am ñoo xam ne nangu nañu ñu nangu wooteem boobu donte ni wóoluwuñ ko waaye gannaaw ñaari at waxtaan communité internationale bi jàpp ci parce que dañu woo ñoo xam ne duñu ay sénégalais farañu sàmba farañu kujje gi farañu ñu nekk ci nguur gi ñu tànn leen ci seen mandute am ñu ci jàpp ci seen koppar alalu Sénégal wala bu ñu jàppale Sénégal ci tu lu tollook Euh, juróomi téeméeri million ñu daal koy dépensé ñu def ay tegtal yoo xam ne ay dénkaane yoo xam ne bu ñu seetee réewu Afrique yu bëri jàllale nañ ko lu mel ni bulletin unique wala lu mel ni euh, euh, parrainage yi niñ koy doxalee wala caution wala article L31 ak L32 bi nga xam ne amul fenn ci àddina bi lu muy foo bëgg a faagaagal démocratie ñu ne lii dañ ko fi seppi président de la république mon ak nitam ci biir waxtan bi ñu ne lolu ñom mënu ci d'accord dialogue bi bind ko 29 juin pour wax ni comme da nga né won lepp lu ñu d'accord té muy jëmale Sénégal ci kanam di ko khatim li nak day jëmale Sénégal ci kanam parce que Afrique yépp d'accord nañ ci lan nga ci wax ba tay tontuwul waye tontom moy def projet de loi bo xamné euh, lundi lañ ko adopté proposé ko en urgence assemblée nationale moy rek forme bo xamné day woné ni dialogue bi nga xamné ne la doon parce que bu la ay kilifa nga tontu que tontu yobul loi bi nga xamné kenn d'accordul ci li ci wala d'accord nga ko assemblée dañ procédure d'urgence opposition bi yëpp dajé luñ ñu doon séentu ci président de la république muy luñ ñu doon séentu ci kilifa gi muy euh, demaleeg démocratie Sénégal ci kanam suqali ko moom li mu waxoon mu ngi ci mooy néew ma ci njuuj njaaj waaye musul denc ci njuuj njaaj ci gis nañ ko donc li ñu tënk fii tey mooy benn dinañ yebal ay délégation ñu dem ci kilifa diine yi ak kilifa yu nekk ci réew yuy motal waxal yépp wax ak ñoom ndax ba muy ubbi dialogue bi ñoo waxtaanoon pour dialogue bi pour arriver ci résultat bi organisation société civile et ak organisation force vive nation bi yëpp muy syndicat yi muy ñëpp ñoo xam Sénégal ñor la leen te gis nañu que démocratie ñu te pour comme président nee na xamul dialogue te logique boobu mu nekkoon réduire l'opposition à sa plus simple expression moom la ba ñu donc benn choix lu muy jàmmaarloog donc bu boobaa ñun tamit dinañu waxtaan dem war sénégalais organisation yëpp force vive de la nation Nous avons fekk si te lan la euh, doxal leen lan la lan lay donc nous ñu loolu la ñu amoon leen di wax di gërëm nag suñu ñu ñu ci ndaje yooyu metti Nous na loolu plénipotentiaire ñaari at ñu fay dem di ne di ni dialogue bi perte de temps la euh, ku nous ci dialogue bi de temps la du temps parce que gën effectivement lan président de la république Macky mun na ci benn bu ñu la dóoree deux mois sursis bokkutoo ci mënutoo daje ba sa ngiru dund mënutoo bokk ci ay jongante loolu mu ñun mënuñu joxe exemple bu gën a simple loolu que taxawaayam mooy jéem a faagaagal démocratie te am na ñoo xam ne déjà ñu ngi ci pro listam sursitaire bi nga xam ne teg na ko pour faagaagal kilifa diir kilifa politique yooyu pour ñu bañ a bokk ci prochaine élection loolu kenn waru ko nangu te kenn du ko nangu te du ñu wax ni sénégalais yi ñu doon ci suñu génération bi fekke loolu nangu nañ ko ñu leen di gërëm di leen sant